ma setan di xaasal yo Sahel entertainment ndax ñom seen liggéey rek moy li ñor de kabila la gaay di def yaaga neen ci nak xamna ne suñu ñep meloon ne ñom mom nit ñi dineen awuyaa li dox si dëkk bi sakatuma febar bi lembe di delo nuyu nak na man assist pa Paboy Freza maay secrétaire général bi National People's Party Banjul NPP di nuyu ñep ak ñi ma seetaan di nuyu waa Gambia di waxtaan ak yéen nag ci mbiri coronavirus bi ne coronavirus bi ñi ko doon weddi yëpp gis nañ ko ne dëgg la ndax kenn relewul mbil fan yi fan yi ñàkk nañ fi kalifa yu bari ay imam ay ndaw góor jigéen ñàkk nañ leen ba tey bi ma wax ak yéen nii sax am na ay ndaw yu ñàkk ak ay kalifa yu ñàkk coronavirus bi nag lu am la wax neen ñu ba tàyyi raxas suñ loxo yi di sol face mask di def social distancing waaye nag am na ñu ko topp am na ñoo xam ne nag toppuñ ko te ñu ko du toppa nag ñoo ñoo lor waaye foog naa ne fagaru moo gën faju suñ ne mbir yi lëmbee si réew mi ak àddina si ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ si seen bët di gis bokku ca foog naa ne war jël ay matuwaay yu yu mag sakatuma ñun waa ñun di bëti réew mi te fagaru mbi gi mooy di raxas suñ loxo leen wax di sol masque di di toog si kër di def social distancing di jàpp xale yi da ngaa xool ne même fi ma waxee yéen ni sa soo seetee leen soo leen xoolee sa am na yu nekk si mi di ay football ëppa doole gi ma romba kenn ëppa doole gi ma romba kenn solut masque xale yaa ngi sen wajuri ni ñu ar sen ar des na ndax soluñu ay mask ñu ngi fi nek ci mbeda mi di football te jangaro ji léegi eaboon la amna ñoo xam comme xalé yi ñom du len sona nonu lool way dañ ko walé kon nag pour ar lool fo nga ne dañ wara wax xalé yi set suñ gi ndax ñu ñepp am di len ar ñu tok ci kër gi di len minal mask be pare ñuy raxasu ba wara ñu wara bay football gi ci mbéda gi ñun ñëp suñu toogee suñu kër yi def sa tay ñu santa wallahi lembe febar bi du lëmbeeti dina dem dina dem lolu rek ko mëna ar ci ñun ñun ñoo mëna xé febar bi febar bi ñun rek ko mëna xé ndax ñun ñoy febar bi suñ ko xé rek lay dem ma ñëw ci mbiri ID card ID card yi ken ñëp gis na suma Facebook page ñëp gis na ma ci social media bi bi ma doon wax ñun fañ la ñoo dem ñun wa Banjul pa Gambia fu ñoo dem mu ngi alaw gan yi di mëna amé amee suñ kayit elek suñ doom yi nak la ñoo mëna momé seen rew gan gu wara ñoo jël kayit muy ID card rek am nga droit pour mun dugga ci si suñ kayiti réew te su dugga suñ kayit rew elek do ko mëna xex mbir mi mom si mëna wax moy ñepp gis neen natal ci Facebook Fat fay mo doon wax Facebook ne dañ ko jox xaalis ki ko jox xaalis loolu ne Ross bi ko jox 20000 approche waa diaspora bi ko ñu ko yónnee xaalis muy def ID card ID card yi wane ko téye nañ audition yi def nañ ko si Facebook keroog ñu décide keesam bi ñu décide keesam lan la dellu wax moom ragalul kenn mu ne neen seet exemple sa Yaya Jammeh Yaya Jammeh ba mu fi nekkee. mom ragal lu ko dawut deful ni loolu Hamadi, xamadi loolu Hamadi, lu waa war dal sa ko nga wara balu lu waa war dal sa ko nga wara balu baalu ma wax xamadi ngay wax ci social media di ñu jay xamadi ne mom dara do ci gene mom ragalut ken ragalut dara lolu nak ma ngi appel si IG IG ma ngi appel si mom ne war na see jël ay jéego ndax nit du def ofen ofen rew mi be pare taxaw di ñu jay rew loolu war na see def jéego gu mag loolu maa ngi koo appel si ay ji mu seet ban jéego la ci war a jël ah ñi ko wax daal politique bi moo yaaxar réew mi ren politique bi am Gambia musuta am Gambia ndax danoo gis dëgg bi bañ ko feebar bi xamul politique feebar bi su fekkoon ne xamoon na politique du jàppoo politique yu mag ñii politique te mag mag si réew mi téye su xamoon xeet du jàppa benn xeet xamut kola xamut lees xamut bambu xamut yow yaay kan soo foog naa ñi ko wax bu leen political jaay eh, jaral bakken ay bakken ay bakken yiy dem parce que ñëpp gis ngeen bakken yiy dem waay waay waay waay waa Gambia wan leen eewu fi mu nekk waa Gambia yaay gis liy lore nga toog ndik politique ñu leen a fay xaalis yu ndaw ngeen ay wax di sabote foog naa ne war ngeen a passé loolu fi mu nekk nii jamono ji passé na loolu feebar bi kenn di ko politiquer ndax feebar bii xamut kan kan la gis neen ñi faatu si réew mi ren ay imam leen ay ay ay ay ndaw yoo xam ne they are promising ak ay xaleel yoo xam ne kenn dafa doy waar daal su ma ko wax sax su ma rongo ñi daf dee bugg a rob ñu gis loolu di indi si lii si politique yow tey soo fagarulee aan nga keneen keneen su fagaru de aar na keneen ki nga ki nga e fagaru sa mun naa nekk yow sa bakkan waaw dañ ne di life you save mais bi yowoon kon nag ne neen ngir yàlla génne lii ci politique ngir yàlla génne ko ci politique ndax feebar bi xamul politique bëgguñ réew mi bëgguñ seen boppa ñi ko wax daal bëgguñ réew mi bëgguñ seen boppa ndax léegi kenn du di feebar gi ndax gis neen ko weer gi rek lim def si Gambia ñëpp gis neen ko bët bu set ba fi ma toog nii tey suma ay dëkkandoor a nii am na ñoo xam ne faatu neen dik feebar gi sori wuñ ma sori wuñ ma soo feebar bi di matuwaay li ñu si jox neen ko jéem a jël matuwaay gu mut set jéem ñoo faj jéem ñoo faj yéen yaay faj sa bopp a fajaale ñu ndax feebar gi comme dal mun mun naa nekk yow sax keneen ku mun na koo am mun na la ko wàlla comme ngir yàlla nag maa ngi ñaan waa réew mi ñi wax naan ne feebar bi amut ñu delluwaat seen xel bu leen place wala politique jaral leen am na lu ma bugg a wax sax ngeen baal ma yéen waa saxel ndax yéen a ngi rëggee si réew mi keroog sa dëj ba ma demoon muy dëj Aliou di kilifa bu rëy gisuma benn journaliste bu ñëw Febar loolu pour won nit ñi ne feebar am man maa fa nekkoon dem live di ko wone buka bugg suma réew di aarale suma boppa parce que suma réew rew suma boppa genu ma ci ma ci genu suma njabot genu si suma am di jàmm genu ci man ma dem ci bi ma si demee bi ma demee mbir bi pour ba ko dama do risk suma life ndax man ama woon matu yu doy face mask rek la wan. won ma nek ci ben journaliste ñewuñ wa politik. nekkon mbiri politique wala mbir yo xam dañu ngañe nit ñu nañu si yëpp ñëw tey journaliste yëpp ay ñëw soo loolu journaliste nen yakar ñoom leen yaakaar si ñuy xewee ñoom ñoo si war a gën a jël matuwaay ñëw parce que ñoom ñoo yee nit ñi waaye bés boobu kenn taawu fa kenn taawu ndax suma life bi leen jël after wash di ko si gis naa ko ba gis ko TFM waaw loolu nag maa ngi seen ñaan journaliste yi nag ñu dimbale su dara xewee sakatuma façon yi feebar bi ñu farlu si comme nan la Sahel Entertainment farloo si lii ndax ñoo si farlu ñaari yoon ñu ngi nii sax di ma interview ñaari yoon te dañoo bàyyi seen liggéey yëpp ñëw suma kër di ma interview kon gàcce nga la mas xel entertainment waaw ñooñu li naa woon ne nen wara xool léegi jël nen sax nguur gi sax jël na jéego dem dem ba Kanifing hospital def ko mu nekk ay covid centre ndik fi ëpp feebar gi dem dayo feebar gi si biir réew mi loolu rek is an exemple nit ñi xam loolu ku jël whole lopitaan def ko pour loolu ngam ne xeewar gi dem ah, fu mu nekk doy na waar feebar bi doy na waar nit ñi ne gis wedi bokku ca yen war ngeen naa na gisli gis li li ken mo a wak ken ndax ku ci nek dal am nga ci ñaarel mboka bo ci ñaka wara am di jamo wara xarit bo xamne ku prominent la won ko xamne ñaka nga ko ci kon nak yen so len gisee lolu war ngeen ñoo jog ñun ñoo fagaru ñun ñëpp suñ joge fagaru xex febar bi wallahi duñ ko fi gisati wa Gambia nen len jog sakatuma wa Banjul man ma waxal ndax ñoy suma askan mang ngi leen ñaan ngir yalla yonenta bi ñëpp jóg fagaru xamne ne bi lu amna na ku ci nek nak am na ci ñaka ñaka gi moy su nekul sa mboka sa am di jamala wala sa dikando kon mang ngi leen ñaan di leen ñaax ne so leen setané e li ngeen setat seen bopa setat den seen bopa bu baax febar bi mun nañ ko génnee sa tay suñ ko topé rek wallahi bu du jël six weeks ñu daxa febar bi kon nang mang ngi ñaan su askan gi ñu dimbalan suñ bopa ngir yalla yonenta bi ak bakani doom adama sa tay ñu wara jël moy di sol masque di rasu toujours jappa xalé tok toog kër ndaje social distancing soy tok sax comme gis nga man ni ma togué sé di wax sax si télé bi di wax wax ak sa xel entertainment distancing lañ def distancing bobu dafa war dafa war si arla la tu tout nuy rasu toujours su fekkee ne sax amuloo eau sawel boo raxasoo amuloo sanitizer boo jël mun ngaa jël xorom def ko si ndox bem saf na saf soo ko raxasoo moom it tamit dina aar jàngaro ji matuwaay yooyu war nañ koo jël ngir yàlla nañ toog si kër yi ngir yàlla nañ jàpp xale yi ngir yàlla nañ sol masque ngir yàlla nañ di raasu di def social distancing wallahi suñ ko defee rek dinañ gañe feebar bi. moom loolu moom suñ ko waxee it ay wax la rek ay wax la rek because nit mom. lu ko neex la de wax ndax wax dafa yomba dañ de wax ne tok is cheap wax lu yomba la bari wuñ boba bari su fekke ne febar bi fi la opone kon jeex neen bañul ñun ñu fi dëkk wuñ ndax ñi ñew ñi ñi liggey si bañul yeb dañu ñew ñi jala jale si ferry bi ñi ñewé ci yoni, jala jaala dantin te opa doole gi yëpp ñooñu ko indil ndax Banjul nu néew a fi ne feebar bi bi moo commencé commencé wut Banjul de commencé na Gambia nag waaye du Banjul la commencé ba pare nag ku si feebar fii leen laa indi moo tax nag xëj na gars yi wax ne feebar gi Banjul la bare waaye loolu mënut am ndax su amoon tey Banjul xëj na man tey sax du ma wax a yow waaw ndax ñu ñu néew a fi dëkk su liggéey wàccee doo gisati kenn Banjul Banjul ñu fi dëkk bariwul kon nag loolu ay wax la rek. moom laa la wax comme ni ñu wax ne tokk is cib ndax wax yomba na waaw léegi na gis nga foofu boor boobu mooy kilifa yi ak boroom kër yi ñoom laa ŋaaña si lii ndax ñoom ñoo moom seen kër yi ñoom moom seen kër yi wax nañ leen ne koo xamoon ne génn na réew mi ñëw na nga kol one zero two ñu ñëw jël si ko quarantine ko loolu sa boppa nga ara sa njaboot sa boppa yow moom nga ara sa njaboot ak soo buggee sa réew da ngaa def li réew santaane sarta ñii ñoo nekk Korintine daw génn Korintine suñ ñëwee yéen borom kër yi bu leen nangu ñu dugg seen kër yi nañ delluwaat fan jógee gan boo gis mu jógee feneen ñëw dugg si na nga or ne di nga ko boole soo boolee doo feeñ soo kolee one two one zero two five kenn du wax ne diw sangama kol kenn du xam sax ku woote xanaa yow nga ngang sa gémmiñ ne maa maa woote. te foog naa ne ku ku woote du boole boppam loolu daal ñun borom kër yi ak ñun ñun dëkkandoor yi ñoo si war a def gan guñ gis si koñ bi tey xamoon ne gafa génn a ñëw war ne noo mun a oo 1025 ñu dimbale si parce que loolu suñ boppaleen leen aar aar suñ njaboot moo tax ma ne la waa Banjul waa Banjul ñetti yoon waa Banjul maa ko wax ne waa Banjul nen bàyyi lem-lem geeg naa fexa geeg mun na boole gi feebar bi day kun si boole day yàlla sa tiyaabu la bindal ndax feebar buy reyee la nen leen seet leena su woo amee si dëkka kenn du wax ne bitig bi ubbi na wala bitig bi tëj na marché bi ubbi na bi tëj na lu tax ñu am curfew waa lu tax lii lu tax lële corona mooy woo parce woo dafa reye woo dafa reye soo suy reye kenn du wax sa na ne nobul xam nga ne woo soo leen gisee nit di ñëw da ngeen naa boole kuy ñëw rey si da ngeen boole lu tax nag korona bi nag ngeen gis koo xam ne génne na génne na réew mi duga si réew mi te xamuloo ndax indi na ko nit boole ko ngeen ay wax naan naan kooku de kooku waruloo ko boole waruloo def nii yow baaxuloo yow dee nga kii wax loolu dee la moom ci bopam moy dé ndax ko añaan la ndax ko dafa bëgg ñu nu dafa bëgg febar bi jéxal ni ndax feebar bi rek weer mun na jéxal Gambia yépp weer rek su né arun suñ bopam fagaru fagaruwuñ mun na jéxal Gambia so lu mu ñu jëlee ko si exemple yi woo rek moy li ma la doon wax ne su wo amé kenn du wax ne bitik bi ubina kenn du wax marché tejna kenn du wax bul bolé kenn kuy wara a xaw ku amee fetel rey kenn du la ko wax. kon nag suñ gisee woo woo boo xam ne duñ ko gis mu ngi reye te doo ko gis fi ma waxee nii sax mun ne duma ko gis nit keneen nga gis keneen ku ñëw jógee feneen te si biti la ëppee ndax si waa ki si biti moo ko ñëw wala si Gambia ndax force kees gis ki si biti la jógee indi ko nu gis loolu war a aar suñu boppa ngay wax naan naan kooku waruñ koo boole waruñ ko dem ne kon nag kii ko wax moom baaxul baaxul kooku du concerned citizen koku du nit ku bax jiko yoy len wara gene ci ñun ñun dañ wara gene jiko yu bari ci ñun jiko yoy suñ ko gene rek Gambia dem kanam ñoñu nak maaw ma nga wax si ñoñu ñi amé karanga rew gi ndax loolu la leen naa dañ leen jop nu ar rew mi mom la leen la ñoo seen bop sutura yaay seen jobo te fokk naa ne bi ñoo jël liggéey gi dañ waat kon ñoñu lu fi xew rek lor nañu sen alakhiratu du ne ndax tey benn 5000 rek tax ay junne junne bakken dee benn 5000 ni jox la ko fekk am nga amee feebar bi dugga si ñim jaaral yëpp bokka moto ñim bokkal feer yi ñëw dugga si koñ nga kër gam dëkka yëpp ñaata bakken na nekka noonu yàlla rek a xam yàlla rek a ñooñu yëpp soo loon loree yow yaa ko def yow min feeyoon pour dugga si ngir yàlla ñooñu sax ñoo war a seet seen diggante ak yàlla ba pare seen bakken sax ñoom tam mun na see des ndax ñoom it waa réew mi leen fi ñu wàccee danoo ñibbi si te réew mi su ko amee ba feebar bi lëmbi dan see jot foofu leen war a xalaatee gis nga koo aar rek sa boppa nga aar koo aar rek sa boppa nga aar wallahi lazim ya koo aar rek sa boppa nga aar kon nag ngir yàlla ñooñu war ne noo xoolee foofu benn semmi bu tax nag nga jël ay junne ba kenn pro sa bos doyul ci li nga am muy barke doyul ci li nga am muy ngëneelu Eric dañ la fay su fekkee ne si yoon nga jaar dafa wu waaye su jaarul si yoon wallahi du barke te ne leen xalaat ne alaxira am na ne leen xalaat ne alaxira am na dañ koo fekki la nga liggéey fii rek ngaa fekki ëllëg soo na bu leen jël ni nit bu leen jël ni nit yàlla rek a mun a jël bakkani nit gis nit ku jógee tey si biti ñëw fii jox la benn cinq mille wala benn dix mille wala yaa xam loo ko jox duga si indiwaale feebar bi rey ay nit wallahi duñ ko layoo suñ borom kon nag nan ngeen xanas boppa bugg a réew mi bu ñu réew mi jaral xaalis réew mi nañu jaral intégrité réew mi na nañu jaral gum sa boppa loolu la ñu réew mi wala jaral suñ ko defee rek wallahi dëkk bu neex la ñoo am li ma waa mbiri NPP du taa génne maa ngi maay secrétaire général NPP Banjul man politicien la jaar naa fu nekk jaar naa UDP jaar naa GDC jaar naa APRC bala maa ñëw NPP tey soo nag kon nag man laal naa fu ne since 2006 maa ngi taxaw élection fii fi ma toog ni mooy Banjul saw taxaw naa fi musuma am carte musuma vote in waaye dafa fekk suma métier la te ku yàggal li nga xeex ëllëg di nga ko am. inshallah allah ci dëgga ci deugar ila wax di ko am elek NPP dafa nekk xamne dan dan def fi lu bari wecc fi lu bari ndax tombé na PPP sanina carte PPP man pa Boy frisa sanina carte jamano PPP sanina carte jamano yaya tay mang ci bir kon nak xamna li nekk Gambia NPP institution la NPP du parti da Adama borosa sax parti ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko teg ñu ñoo teg Adama Barrow parce que daan gis ne moo ñu mun a jiital daan gis liggéeyam gis ne dafa bugg a réew mi gis lim fi def ñu koo jàppale NPP de gisaguma ko ko gën gum gisaguma benn pati bu ko gën gum fu mu nekk nii ndax moo maax moom moo wëcc ci fi ma toog ni tey gisoo ni mel amoon na time pour ma toog fi yombul lan la ko def NPP bi NPP moo ko def NPP de bi mu toogee ñuy lay foundation stone bi fële muy Banjul rehabilitation bi ñu doon def stone bi ñu doon lee bés boobu la ñu ngi woon KG5 mooy Pagi Afdaye Barrow dafa teg xeer rek génn rek liggéey gi door gaa ko doon xaar rek si la liggéey gi door ba nii tey tey ku gis Banjul xam Banjul xam ne wécce ko bu rëy fi ñaari nguur romb na fi te gisuñ ko Adama Barrow ñëw. te gu togayam mu wara melni kon nak ki su fi yage mom fo dañu dina dinañ ko am way nak mbir mi yeb bañ la gis nga so bañé nit ku dé bañ du buga bañ bañ yu buga so ko ligalé lu ba sa ma nga jox ko réel tay sax su génné né na joxuma réel dama hif lolu moy wa Gambia moy wa Banjul seen jiko non la démé waaye ñëpp war nañoo xam ne NPP a ngi liggéey ñëpp war nañoo xam gis ko because fu mu nekk ni ñu ngi si condition eh, environnement boo xam ne macha allah loolu jarul man liggéey gi daal jarul sax maa ko dee wax parce que ku nekkaan say gis boppam ñun ñaa ngi cekes ni war a cekes ñi kaw xil si jeexatut ma ne even ay fita maa ngi dégg ak keroog ay fita yooyu jooy sax di wax naa ne waay baro waay baay baro ngi tax liggéey neen talibe ñun amatuñ job job pour liggéey moto a ngi baax bu njëkk ba every minute moto paan ay ay fitaay wax loolu de ndig développement bi ñu am gis ne na ñoo xam ne é léegi suma block hill bi léegi suma high hill bi waaye fu mu moom duy jeex sax du may dem si kopla bi kopla baa ngee jooy sax mooy suum ñu ndee ooyee suu docteur yëpp kana ko def du baro kon nag leneen lu si waay wax rek ñu bàyyee ko noonu daal loolu leen mën a wax rek dañ ko bàyyee noonu waaw ndax gis nga di bokk